Ndeye Marieme Ndiaye asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm imam ndaw génne nañu ko ca kaso ga ñu ko te joon tëjoon waat na ci njabootam tey ji ëtulikaay yëpp daal di koy fësal ci seen xët bu njëkk ndaxte ñu ngay ñëwaat nag ci procès boobu nga xam ne ko fi tàmbali woon fan nañu ci mujjee liñ ci mën a jàpp ëtulikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne kii di imam ndaw moom mi nga xam ne nag bokkoon na ci fanweer yi nga xam ne dañu leen tegoon loxo jëmale ko nag ci wàllu terrorisme moom de kii di juge Samba Kane mujjee naka bàyyi lañu jàpp kay waxee teg ko ci ndoddam moom mooy ne dafa yore gànnaay te amul autorisation autolikay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne am na tamit yeneen fukk ak ñeenti nit ñoom ki nga xam ne de moom mooy Maxtaar Joxaane moom dina tëdd ci lu tolloog ñaar fukki atu kaso ñu gis na ñeneen yoo xam ne tamit ñoom dinañu tëdd ci lu tolloog juróom jàpp fukk ak juróomi atu kaso moom moomu di Imam Ndaw autolikay bii di Sud Quotidien mi ngi ñi xamal ne démb kon daani dañuy jógee ca euh, camp pénal dañu ko tëjoon dem ñibbi nag fa li nga xam ne moom mooy ca këram euh, ba mu génnee nag autolikaay bii di Walf Quotidien daal dinay taataan ay kàddoom ndaxte moom moom di imam Ndaw daal dinay ne nag ñoom xamoon nañu daal ne moom deful ci biir kaso moom moom nag di imam Ndaw di xamle ne ci fan yi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal dina daal di yëkkati ay kàddoom autolikaay bi di enquête ne léegi kon kay su fekkente ne nag kii di imam Ndaw moom daal dinay tëdd lu weesu ñaari atu kaso su mu jëntal ga ñu daal di koy bàyyi mu ñibbi wàcc këram kon kay war nañu def jàngat nag ci li nga xam ne daal moom moo jublu ci wàllu arrestation ndax yow cuulikaay bii di enquête ne su fekkente nag tey jii daal dañuy daal di rafetlu liggéey bi nga xam ne nag moom le juge de la chambre criminelle def ak tamit euh, service de renseignement yi war nañu xoolaat tamit naka la enquête bi demee li taxoon nag ñu jël ki nga xam ne de euh, moom mooy imam ndaw ko ràpp ci biir kaso bi Dakar Times di xam le ne ñoom sa njëlbeen nañu ne xeexoo bu am ci diggante renseignement généraux yi maanaam service de renseignement bu police ak gendarmerie loolu nag moom moo indi lii yëpp ki xam ne de euh, moom mooy imam ndaw ñoom ñooy enquêteurs yi ñoom defuñu mu waree turikaay bi di La Tribune ne kon ñi nga xam ne nag ñoom ñooy enquêteurs yi tey luy njiig ñoom ñooy njaag ndaxte ñoom ñoo deful leen war loolu sax moom moo tax ba fu mu nekk nii nag kii di imam ndaw ñu tëjoon ko ci kaso bi wante loolu yëpp jeex na ndax juli kay bi di la tribune mi ngi ñuy xamal ne génnaat na ba fu mu nekk ni nag dem na wuyu ji ñi nga xam ne nag ñoom ñooy njabootam tey mooy bésub xam ne nag jooy nji di Mansour ndox gi ñuy nemmeeku fii ci biir Dakar nag dina jeex tàkk autolikaay bi di l'observateur ne kon tey ji dinañu xam ndax li Mansour Faye wax dëgg la am de wante su fekkente nag li ni mel amul de bu yeboo nag nañu xam ne ay yëngu-yëngal dina am fii ci biir réew mi wante ci biir ci yéenekaay bii di Le Soleil suñu naataango yi nag ñu ngi dalal ndax ñu ngi ñi ne démb jëwriñ ji nga xam ne nag moom mooy Mansour Faye mu nga xam ne nag moom mooy xam ne dafa jublu ci ndox boo ko soxla ñu daal koy joxe ci ni waree daal di koy ful sax loolu sax moom moo tax ba démb am na yenn ci ay liggéey yoo xam ne nag ñoo ngi amal ak tamit yenn ci ay forage yoo xam ne nag ñu ngi ko doon ubbiwaat moom nag di Mansour di ba ndox bi dellu si waatee ci ni mu waree nag fii ci biir euh, diwaan bi wante coolikaay bi di l'observateur dellu si waat na di ñu xamal ne su fekkente ne nag loolu yëpp nag taxul ndox bi ñëw ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Y'en a marre ñoom daal di dañuy xam ne dinañu yëngu-yëngal wàcc ci mbedd mi waa COS M23 tamit li ni mel la ñu daal di xamle coolikaay bi di l'observateur duñu fàttali ne ci atum 2012 coupure courant gi nag moom moo yóbbu woon ki nga xam ne de moom mooy maître Wade atum 2019 nag suñu may tuulee ñàkkum ndox bi ak tamit sax yeneen yi pénurie yi ñu fi nemmee nemmeeku ndaxte wàllu essence bi barke de moo njaay lañ wax ne dafa ñàkk fii ci biir réew mi rax ci tamit ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp euh, réew mi juma masalikul euh, jinaan ci ñaar fukki fan benn ci weeru septembre atum 2018 la ñu waxoon ne dañu koy inauguré wante autolikaay bi di 24 heures moo xamal ne bés boobu nag dinañu ko dàq ndaxte dafa am yenn ci ay xew-xew yoo yoo xam ne daal euh, moom mooy tax ñu daal di jël décision gi ni mel aujourd'hui kay bii di 24 heures mi ngi ñu xamal ne ndaje amoon na nag ci diggante Serigne Mountakha Mbacké Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre tamit Mbacké yu fay euh, ci noonu sax ñu daal di xamle ne ak tabaski bi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal nawet bi nga xam ne tamit dafa tàmbali ak tamit ak tamit grand magal de Touba bi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal loolu yëpp nag moom moo tax ba ñu daal di dàq inauguration bi ci yeneen jamono te ñu koy jeexale ak wàllu tàggat yaram stade yéene kaay national bi di Malang Diédhiou mi daal di xam ne démb ne moom nag daal dinay dakkal carrière internationale am moom di Malang mi ngi ñu ne démb la ñu leen doon sargal foofu nag la daal di xam ne daal ne jël na décision ak gi ni mel ba léegi ci biir culikay bi di stade suñu natango yi tamit daal di nañuy jokkoo ak El Hadj Ousseynou Diouf moom ba léegi ma ngay wéy di yëkkati ay kàddu mel ne xamee di ko teg uh, ci ndodd waa fédération moom moom sax di El Hadj Ousseynou Diouf la mu xamle moom mooy ne sénégalais yi doyal nañu nag ci a def daal di leen fay eh, jëlee wàllu lamb la ñu koy jeexale a culikaay bii di sunu lamb ñu ngay ñëwaat nag ci combat gi ñuy xaar ci diggante Bombardier nag ne nag moom mooy Eumeu Sène culikaay bii di sunu lamb mi ngi ñuy xamal ne kii di Eumeu Sène moom ne nag am na ndam ci kaw eh, eh, ko ko jébbal kon ki nga xam ne nag moom mooy Eumeu culikaay bii di sunu lamb nee na nag combat bii de combat bu am solo la ci moom te it su fekkente ne nag jëlee na ci defet daal loolu moom dina dis torop ci wàllu carrière am lii moo nekkoon wax julikat yi li ngeen a fës ci biir julikat yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak